gi de la turbina wax ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la ak lu jëm ci wàllum campagne bi nga xam ne dana daal di doora dimanche bi ñu dëg ma la waaye nag soo muy tuulee ak tension politique bi jàppante dina ama diggante nervi yi ndax néewaa na làng xam ne yorul ay nervi maanaam coalition yu bare bari faral di ànd ak ay nervi te nervi yooyu bu ñu dajee jàppante mën naa am te musiba tamit mën na caa am yéen a kaay gi délibération sa diwaanu Ziguinchor ak Bignona doon jaali ñi amoon sigi coro fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin wi nga xam ne moom la ñu génn démb Ousmane Sonko bi mu janoo ak taskatu xabaar yi nee na bu ñu waxante dëgg Macky Sall si moo am problème ak ñi nga xam ne ñooy waa Casamance te loolee musuta am ci réew ndax képp ko xam ne jàpp nañ la li ñuy njëkk lijjanti mooy ab joolaa nga wala doo ab joolaa ba tey ci journal bi de Le Quotidien Khalifa Ababacar Sall démb yëkkate na ay kàddu dànkaafu Macky Sall nee na ñii nga xam ne ñoo faatu loolee mënuñu ko bàyyi mu sedd te nañu dem nag moom Khalifa Ababacar Sall mi fi nekkoon maire bu Ndakaaru nee na mbir mi ko yóbbu fa mbaxana doone na ci biir réew mi ak ci bitim réew wa yéen a gi ne na ñi nga xam ne nag ñooy waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom nee nañu xeex bi dafay doog di commencer ndax Macky Sall taxawaay bii nga xam ne moom la am du taxawaay bu baax ci askan wi Khalifa Ababacar Sall nee na askanu Sénégal ñoo mere Macky Sall ñoo jéppi Macky Sall te coalition Yewwi Askan Wi dina gagner élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal Cheikh Tidiane Youma moom nag nee na combat bi képp ku jàpp ne jeex na yaa ngi nax su mbir mi dafay doog di doora ndax Macky Sall mënuñoo ñàkk a jàmmarloo ak mooma a ñu xabaar naan ñi nga xam ne ñooy waaju waajur yi maanaam père de famille jamono ji pression maximale moo tege ci sunu ndodd ndax jamono ji bëri ñoo xam ne dañoo jaaxle ba maara day ndax tabaski gi nga xam ne moom la ñu dëg ma la bu weesoo njëg yi nga xam ne dafa yokk ba maara day xar jamono ji kenn mënu koo moo tax bëri ay père yoo xam ne maanaam jaaxle nañu lool ndax nag xotti dem solal seen jabar yi solal doom yi loolee tamit jafe a ne moo yokk ci réew mi dafa di panier bi dell loolee jafe na leen loola ndax njëgee yokko li nga xam ne mooy soble si yokku na pomme de terre bi yokku na juróomi litre diwlin bi jamono ji am na ñu koy jaay lu ci huit mille cinq cent jamono ji nag am na ñenn ñoo xam ne ñoo ngi laaj ndax am nañu ab ministre bi ñu dénk wàllum commerce yéen a kaay gi de la témoin nee na ci biir réew mi lépp loo xam ne moom la ñuy jëfandikoo mën na ñoo wax ne dafa daal di yokko yokku gaa ngi mel ni tulleeg male yokku gaa ngi mel ni tulleeg male ko waaye tamit ñoo jël nañu ay milliards daal di koy subventionné ngir nag taxi waaye nag jamono ci li nga xam ne moom la ñu nemmee ko maanaam mooy commerçant yi ñoom ñoo ngi continuer di yokk amul benn contrôle boo xam ne am na ci yéen a kaay gi di direct news nee na silence noppi leen état bi si bopp mooy complice état bi mooy complice ndax état bu Sénégal moo jébbal askanu Sénégal ay commerçant yoo xam ne amuñu benn yërmande état bu Sénégal moo jébbal askanu Sénégal ay commerçant yoo xam ne amuñu benn yërmande te nag doxuñu sax ci li nga xam ne mooy journal bi nee na état bu Sénégal mooy complice waa nag ana milliards yi nga xam ne moom lañ waxoon ne dañ ko saa dugal ngir nag daal di koy subventionné loolee kenn gisu ko yéene kaay gi di réew mi ko di cee xëy duñu xibaar mbir mu garaaw a garaaw mbir mu doy waar moo xam ne ma nga xew ca diwaanu Touba dafa am benn mbàkke-mbàkke boo xam ne moo rey benn gelam maara day taale maara day taale ndax nag mbakke mbàkke bii gelam bii nga xam ne nag moo tudd Ndey Jóob dafa daal di jugee sura ñëw nag fi nga xam ne mooy xayra fa mbàkke-mbàkke bi dëkk na ko nag yaa ma ëmbal yaa ma ëmbal ay weere ngi nii dama loolee la mbàkke-mbàkke bi munta dégg daa di jël ab mool tóor ko ko ci bopp bi ba pare nag daa di koy am lu mu ko jam ci boli gi mu daa di ñàkk bakkanaama yéen kaay gi di mi ko di jaay moo xëy di ñu ko xibaar l'observateur moom am na lu mu son ak daa di yokko nee na moom mbàkke-mbàkke bi ginnaaw bi mu rayee gëlëm bi daf ko daa di jël yóbbu ko ci terrasse bi am na benn réservoir d'eau maanaam mbànd yu mag yooyu sala ko dugala ca kaw terrasse ba ba mu commencé yàqu yéen kaay gi de libération moom tim nee na am na lu ma ci mën a yokku nee na mbàkke-mbàkke bi abdourahman mbàkke la tuddoo moom si boppam sax na ne moo def gila giraawaali moo def ñaawteef gi ndax nag da koo dóor li nga xam ne mooy aw xeer ci bopp bi Ndeye Diop daal di daanoo Ndeye Diop moom nag quartier Soura a dëkk dafa xëy tàggu ay mbokkam ne leen damay dem école jëli sama bulletin fekk nag ci Abdourahmane mii la jëm ngir nag doon ko wax ëmb bi ba mu ko waxee ëmb bi nag si lañ ko daal di faat journal bi nee na Abdourahmane Mbacke moomee ma ngi ci loxol yoon moom Abdourahmane sax moo mujjee nag wax ak njabootam giraawaali gi ak njombe gi yéen kaay gi di réew mi ko di jeex xëy duñu xibaar naan njombe xew na ca marché lem H&M ci dakaar ndax dafa am benn jigéen boo xam ne dafa ëmb ba toll si ñetti weer moo sàcc juróomi million ci marché HLM ngir nag bëggoon a neexal ak tabaskeema Awa Coulibaly la tudd ma nga dëkk diiwaanu Pikine tëj nañ ko lu toll si ñetti weer yi kaso yéen kaay gi di sunu làmb xëy dañu xibaar naan ñu combat bi war a dox diggante Balla Gaye numéro 2 ak Gris Bordeaux kan la ci xeex bi arrangé ak kan la ci bëre dëgg arrangé loolee ab laaj la journal bi di sunu làmb moo xëy di ko laaj waaye nee na en tout cas li am ba des